fukki wax ak benn xibaar yi ci gàtt dañ koy tàmbalee kuréel bu boole syndicat yi di ay contrôleur ca na ñoom dàkkal nañu seen i grève bi ñu amaloon waaye nag àppal nañu fokki fan ngir kilifa yi fexe bay ndey saafara ci seen i jafe-jafe li nag waral loole am mooy taxawaayu premier ministre bu réewum Côte d'Ivoire ak ministre bu doomu Sénégal yor euh, transport di duduka euh, wala transport aérien waaye nag leexal yi dañ ci ànd ak kii di Abdoulaye jasin Diallo roppalaan yi dinañu mën a naaw ci aéroport réew yu bokk ci ASECNA ndax contrôleur aérien yi suspendre nañu seen i grève Paul François Gomis mooy secrétaire exécutif bu USUICA. grève bi nag duñ ko dàq gum ndax ci ci suba la premier ministre ivoirien bi intervenir et aussi suñu ministre boo xamante ne moo chargé transport di Doudou Ka depuis démb ñu ngi wax ñun pour ñu suspendre moo door bi comme ñoom dañu ñoo dig ne ñoom dañu wax ak DG pour mu régler suñu problème ñu xaar moo tax mu ñu leen moo door bi. buñ ci indoolee ay saafara. dañuy delluwaat dañuy delluwaat ci grève rek parce que dañ ko suspendre pour fukki fan rek en attendant que ñoom ñu régler problème bi su régler wul nag moom fukki fan bu jotee moom dañuy dañuy grévaat gréviste yooyu nag ñii di waa ASECNA jot nañ leen teg ay daan ba tey bu ñu sukkandikoo ci ay kaddu Paul François Gomis am na suñu xamante ne si ñun dañoo sanctionné sanctionné nag ci ASECNA la jógee ASECNA moo ñu moo ñu sanctionné mooy yu mel ni lan les sanctions yu mel ni ay sanctions ay ay suspension la maanaam dañoo interdire ñu ñu ñu liggéey dañoo interdire ñu am accès ci bâtiment accès ak suñu suñu service en attendant attendant ñu ngi xaar ñu ñu sanction yooyu USUCA nag du ab organisation clandestine di tontu bu Paul François Gomis tontu waa ASECNA ndax sendika yu bokk ci union bi dañu bàyyeekoo ci fukki ak benn réew yoo xamante ni dañu daal di bokk rek ci organisation bi di ASECNA ci fàttali ñu ŋànk organisation boobu ci fan yi ñu gën dañu daal di rek qualifié usuka ci ab organisation clandestine bi nga xamante ni benn réew bu bokk na reconnaître ko. dina grève boo xam ne bëgg na loolu mujj ci jafe-jafe foofu ci ay BD ndax bëri na ay wol yu ñu fa daal di annulé war nag ba ñàkk waroon jël. am na leen métti lool ndax daal ne kenn waxu leen dara Kaffrine béykat yi ni ki démb ñu ngi woon ci kaw tali bi ngir daal ne euh, faw ñu daal di yokk kilogramme gerte bi yóbbu ko ba téeméer ca ngentu Malick nag euh, béykat yi foofu nag di naqalu dal lii di intrant yi ci wàllu mbay mi nu mu chéré lool waaye tamit Sonacos ak ñii di waa Sénat ni ñu tegee seen loxo seen secteur boobee niki démb ci wàllu tàggat yaram Sénégal gis nga ne moo door ñii di waa Bolivie ñaari bal ci dara ci match amical la woon euh, foofe ca France ñaari bal ci dara ñu na xaar beneen match bi incha allah ñoom ak euh, ñii di waa Iran mbokk jaa ngeen jëf mu nekkoon xibaar ci gàttal Seydou Noxuba moo fare woon ci micro bi technique Abdoulaye Diop léegi-léegi grand jury Babacar Fall di dalal kii di euh, Cheikh Tidiane Dieye